ay ca bàkk ba jib yéen kay groupe des na ne leen ci kaw tribune bi yéeg leen ndax danger am na danger am na jamono ji ci réew mi de li ko waral nag du lenn lu dul yéen bi nee na ñu ngaa recruter ay nervi politique yi di laaj ma pour lan ngir naka doo rax a defante yéene bi ne kon ay affrontement mooy xeeñ de ah kay sagar mu ngay xeeñ jamono ji nga xam ne waaye yeewi askan wi ñu ngaa door seen gatsa gatsa gi le quotidien yéene kaay ne kon yeewi woote nañu démb de ziga meeting laa la wax nii meeting bu nga xam ne nii terrain ak apes lañu jël duy sa ay nit ba mu fees Sonko jox sa message ndaw yi nee na boo leen parewul rek ñu bàyyi président Macky Sall mu wéyal de ñuy xaar la ca des suux su ma gën a marqué ci meeting lenn lu dul joxante loxo bi dox ci diggante Ousmane Sonko Aminata Touré aha kay nee gatsa gatsa bi de kay akolaat laa la wax la mujj ndax ñaar ñi kat ñoo fi doon defante ba ñëpp gis ko Sonko nankaan tata mimi mimi nankaan tonton xale yi tey jii nag ñaar ñi ñoo joxante loxo Sud Quotidien lu mu ci manti doon de yeewi nee la démonstration de force la doon def demb l'observateur ni ndekete yo nak waw ndekete yo opposition bi way yeewi palang la ñu ne soon di xaar ku tere manifestation bi rek ñu taal dëkk bi waaye lolé la nguur gi téle a autoriser seen manifestation l'observateur moy wax dé autorisation L'organisation de manifestations comme l'État a fait capoter les plans du chaos. Le mandat ni déedéet kaay ma wax leen na ca biir ndekete yoo nag Ousmane Sonko laaj ma lu muy bañ jàkkaarloo procès en diffamation le 16 mars bi lii rek lay bañ nag moo tax muy dànxaaf ku ko teg ay daan yu tax du bokk ci élection yi lii rek lay bañ muy Ousmane Wade administrateur du fonds pour l'habitat social mu ngay wax ne ci groupe des médias yéeg na ci kaw tribune bi nee na neexul ba neex waaye dafa jot nag dafa jot ñu soppi doxalin gi opposition bi ni ñu koy defee ci mim réew opposé wu dans le respect waaw respect des valeurs ba noppi it wodd kàddu yi ndax kàddu yi ñaaw yi jéggi na dayo fii ci néewum Sénégal te wormaalu ñu benn yoon nag lu mu yàqul du ko defar lii la Ousmane Wade woote ci tribune yéene kaay Ousmane Sonko si yéene kaay groupe des médias ne kon kaay ma woo leen yéen confrontation politique leader bu Pastef nee na li ma bëgg du lenn lu dul confrontation politique sama diggante ak waa APR jamono joojee yéene kaay bi nee na ñu dikk nag ci ñaari kaay yi Karim sa Wade ak Khalifa Sall ñaari kaay yi nag jàppale ne kon amnistie bii nga xam ne ñu ngi koy laam-laamee nama nga nga sa de buñ leen jéggalee daanaka kon dafay firndee ne kon li ngeen di toppee yéen ko def budé sacc yene sacc budé jël yene jël way jéggal nañu leen té lolé nak mën na leen top ci élection présidentielle yi ñuy dëg ma waaye it mën naa yàqal Ousmane Sonko dé ndax ñaar ñi bu ñu katé ci arène politique bi jàpp leen ne kon dañuy baatarewaat carte gi dé té Ousmane Sonko to leen dana wañé wàññeeku dem ci ñaar ñi Habib ñaane kon nak politique dañuy xol ak doxalin gi dé doxalin gu dul leen lu fekk ji askan wi taxawu leen ci seen i li motax moo tax mu yóotu le mandat néna na neexul ba neex waaye Habib ñaan na mu li moy mooy doxalinu way politique fi ci réewum Sénégal ni rek lañu ko wara doxalé fekk na chauffeur ci coxeur rabateurs yi ak rabateurs yi nga xam ne ñoo nekk ca rond point jox na leen ay carnet de santé yombal leen wàllu feebar faju gi fii ci miim kon nag ñoom ñoo ñee am carnet yi lu ëpp ci téeméer ak juróom fukk ku ci feebar tey ji wala sa njaboot feebar jàppal ne kon Habib Niang yombal na la fejtal gi gaa ñi ne nañ ko yawade kii la doxalin la bëgg ci politique bi fii ci Sénégal ku leen nekkal ci kër gi ñu nekkal ci naaj lii rekk nag la woote critique yéen intenable waaye li la ca teg le soleil yene kay na waye bobé nak lamuy muy firnde du lenn lu taxawal nañu ngir waxtaane programme économique et financier bu war a dox si diggante Sénégal ak FMI négociation yi dañ ko door ci avril la wax ma nga sa làmb ja yene kay bi suñu lamb néna na koor ci weekend bi lay doon wéru koor ba ngi dik làmba ji aren bi jox leen si koor laaj ma ñan la Tyson 2 caatu yof ñoy jakarlo Papa Ndoy fës kee na defanteex Coly Faye 2 lii mooy suukaru koor deug nak mu ngok di la ci seen kay jangi ngeen jëf